bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. kaddu gi di àddoo fi ci studio Alioune euh, Momar Lo waxtu wi euh, jot na sënkam dal leen jàmm ci euh, xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci wàllu wér-gi-yaram gi sage-femme yanga xamee ne ñoo faxee nag ca diwaanu Touba Mbacké ñoom nag ña nga woon rek ca kanamu xalif général des Mourides lu ni mel nag ci ay tànki ne meeku yoo xamee ne la ko sabab mooy nag wax seeni ay jafe-jafe jàppal tànk seen ñeenti naataango ya nga xamee ne caabi da leen a féete ginnaaw boole koog ne itam ña ngay sàkku rek ci Abdoulaye Diouf Sarr ma leen jaboote mu abal leen lu ni mel daañu ko yaatal ci njëlbeenu xibaar yi gannaaw nag ay jàmm juboo nag ak déggoo mujj nay amaat rek ci diggante syndicaliste yi liggéeykat yi ak seen ko njaatige bii di meeru Kaolack bii di Serigne Mboup lu ni mel nag mi ngi juddoo ci apatogaay toggaayu waxtaan bu yaatu bu ñu doon amal ñoom ñëpp itam ñu daal di d'accord ne nag réero ba ñakk waxtaan moo ko juróon loole itam daañu ci ànd ak Cheikh Babacar Sénégal bi jaarale ko nag ci programme d'urgence bi di xëyu ndaw ñi jàpp leen ne itam rek ne lu ëpp nag ñetti téeméer ci ay ndaw fii ci département bi daañu mën a tàggatu ci wàllum sécurité routière bu ca noppee itam daal di jot li nga xamee ne moo di seenu ko permis programme beeg lay jubluwaay bi pôle emploi bi ak la cay taxawaayam waaye itam nag ndaw ñaak nañu ko sànjaafoo jamono ji loole itam daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne reportage yu gi nag tey jii ma ngay sànni rek ay gëtam ci soxna yi ñu seetlu ne itam nag lim bu takkoo takku rekk ci gono yu jigéen ñi eh, ci jamonoy koor gi dañuy faral nag di def li nga xamee ni moo di eh, muuraay waaye nag bu koor gi di jàll rek ñu delluwaat ci li nga xamee ni moo di eh, périg yi dencaat muuraay bi njàngat li daañu ci dégg Alioune Badara Diop bu li lépp yembee mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram yóbbalu koor gi ak oustaz Mouhamed Sow daal di cay toftal kooru gay ak baax Diop jeexale ko li ci yéene yi mu nekk li gën a fës nees kiis ñu yaatal le journal Ngoné Ndiaye Reine ci eh, kaddu gi eh, fego ceek eh, koddu Seck madame Keneme ci wàllum xarale gi dañu koy doole nag ak wàllu wér gi ay yaram gi ak it na ma leen ko junjee jamono ji nag weñ gaa nga damboon rek ca mbànjaxaan nga faatuk astu soxna bi ak système de santé bu gàll góose bi lu ca jiit njaaga nag moom Abdoulaye Diouf Sarr moo cay njaak tey nag ñun condition yu am métti métti la ñuy liggéeyee lu ni mel nag sage femme ya fare ci diwaanu tuba ak Mbacké ñoo ko daal di xamal xalif général boole koog itam di sàkku rek ñu bàyyi seen ñeenti naataango ya nga xamee ne caabi daf leen féetee ginnaaw sa Moustapha Mbaye sage-femme yi nekk diggante Touba ak Mbacké soloon seen i daal dem seeti Serigne Mountakha Mbacké xalif général des ba ban fa debee lan wax weesuwul ñaanal ñoo ña nga xam ne seen i naataango la te nekk fële ca Louga ñu génn foofee ñu leen dugal ci ay tuuma yu nga xam jàpp na ne dañ leen ko teg sage-femme yi wax ne Abdoulaye Diouf Sarr ku a dem la li jiitu ñu ngi ndax wax dëgg yàlla metti na torop metti na torop jigéen lañ te dañoo waatoon xeex ndeete ci doom ak ndey te defe naa ni boobu ba tey at yi ñu weesu capacité nañ sage femme yi ba ndeete bi wàññeeku na loolu waaye nag yàlla mu ngi fi ñun at bi ñàkk nañ ay sage femme yu doon am doom covid bi ñàkk nañ sage femme bu nekk Thiès donc buñ ne sage femme bi rek la buñ ne sage femme bi kese la ñun dañu sonn te nag nii suñu njiit doxalee muy Abdoulaye juuf saar neexuñu te du dëgg du yoon moom moo ñu waroon boot làkkuñu waaye moom moo ñu njëkk a sàndi xeer fexe ba askan bi bëgguñoo sàndi xeer ci lu dul dëgg ndax wax dëgg yàlla dañoo sonn yóbbu nañ ñu ci àll bi ñu bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi doom bàyyi jëkkër ñenn ñi indi seeni njaboot di liggéey ci condition yu metti toujours médicament day manqué mën na la liy xeex ndeete xeex deret buy tuuru ci wasin fan yi dafa manqué gan dafa manqué loolu yëpp lijjanti ko système bi lañu war a xoolaat Diouf Sarr nag bu dee mënul xoolaat système bi na fi jóge ñu tegal ñu keneen kuy xoolaat système bi jigéen ñi gannaaw seen gisee xalif général des Mourides yokku nañ ci wax ne ñoom seen i jafe dafa yaatu ba na ko ñu ngi sàkku ci askanu Sénégal xel ndaxte ñoom seen mbébét mooy fexe ba kenn du am gàllankoor bu nu ñëwee hôpital Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. lii tam nag junjoon naa leen ko rek ci bopp xibaar yi euh, ci lu soxal nag programme d'urgence xëyu ndaw ñi ak formation en sécurité routière ba ñu cay amal jamono ji ndaw ñi nga xamee ne ñoo faree nag ci département bu Kaolack bi nee nañu daal wàllum nag déposé candidature yi lu métti métti la ñu cay jànkonteel bu ñenn ñi gisee ne jar na ko ña des itam gis na coono dëgg moo ca daal di nekk demoon na ca pôle emploi bu Kaolack bi moom Cheikh Tidiane Diagne. sapeur. waxambaane ki jànq yu toll ci seen digg ndaw fosoon nañu ci barab bi nekk ci witu conseil départemental bu diwaanu Kaolack. mbooloo mu takk moomee daal di fiy tabbi kenn ku nekk daal di xiirtalu wuutali fi nga xamante ne moom moo di barab bi ñuy déposé dossier yi ñu indi ci programme xëyu ndaw ñi. Eh, li bi dara doxul. dañuy wax ne dañu bëgg ñu taxaw mais dañuy rey quoi. dañuy gën a sonal rek c'est-à-dire xaw ma parrainage la xaw ma nu mu demee nii ci ñeenu si naaj bi. ba ba léegi sa so démb ba léegi ñu ngi fii nii mënuñ dugg. ñu bàyyeekoo ci ay barab yu wuute fii ci diwaanu Kaolack waaye ñu ëpp ci ñi nga xamante ne dagee nañu ak ñoom ci barab bi ñu mel dañoo jàpp ne réew mi moo amut ab xëy te ndaw ñi ñu ngi dëxañ seen diplôme moo tax bi ñu déggee programme xëyu ndaw ñi le ñu ñëw wutali barab bi. non Sénégal moom mun naa ne amul liggéey quoi de 100 pour cent moo amul liggéey. waaw xaw na fee jafe nag ndax tamit tamit boo amul les pour mën a fay ci auto école yeeg yooyu pour nga am permis yoon bi muy jaar dafay métti daal moo tax bi ñu gisee lii rek ñu daw ñëpp waaw li ñu euh, liggéey si loolu lañ koy tamit quoi ñu leen wooyee ba pare nañ leen ko yombalal mais yombalaluñu ko da ñëw pour nga déposer rek problème la te soo déposer ba pare sax dañuy sélectionné ñu leen neex nañ euh, xoolaat li ñuy def daal xamante ne ay dossier ñoo ci nekk Ousmane Diatta moom nag mu ngi jógee fi nga xamante ne moom moo di ca gannaaw kabatoo kii mu jàpp ne lu ñu jar na ko. permis jar na ko moom jar na rayantu wax dëgg fa yàlla parce que booy xool tey jii booy passé permis nii nii di nga dépensé au plus de cent jëm kaw quoi mais comme que fii nee ñëwal ñu may la tamit jar na ko quoi. bu ñu sukkandekoo ci kàddu ndawu Kaolack gi ñu ngi ñaax nag nguur gi ñu bàyyi xel li nga xamante ne loolu la ñu fi digge woon ni ay liggéey waaye tamit fexe ba li nga xamante ne déposé nañu ko mu daal di am suivi Aji Diop mu ngi bàyyeeko ko ci quartier bu Medina Baye. taxaw si taxaw bi ñu ci war a taxaw jàppale ndaw yi parce que boo gisee sàcc bi bëri ak yeneen yi agression yi bëri tamit jeunes yi dañoo amul lu ñu def da xool Kaolack jeunes yi Jakarta kese lañ am jigéen ñi topp nañ promotion yi ba teint bu baax sax amatuñu dañ lay déposé loo mais déposé ba sonn après dañuy jël say dossier classé ko teg ko na programme xëyu ndaw ñi nga xamante ne état moo ko ci réew mi yëpp yi di wax ne mën nañu wéyal dépôt yi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu nekk. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne dañuy des ba tey nag ca googule mbir foofee nga xamee ni itam ne fa la ñuy defee dépôt yi barab la naka bu am taxawaay ci wàllum xëyum ndaw ñi programme bu ni mel tàggatu gi ak it ña ca lëkkaloo ponk yi yëpp nag moom coordonnateur ba di Amadou Siré Bari dikkaat na ci ak Cheikh Tidiane Diagne. pôle emploi moo nekk bërëb bi nga xam ne moom lañ jagleel ndaw ñi département bu Kaolack pour fi nga xam ne fa la ñëw pour lépp loo xam ne tey si wàllum emploi la des jeunes si wàllum financement des jeunes ak wàllum formation professionnelle des jeunes et des femmes donc pôle emploi bërëb bi moom si loolu lay dox lancé boobu nag la ñu recevoir temps yi projet bi nga xam ne ministère de l' emploi de la formation professionnelle de l' apprentissage et de l' insertion en collaboration avec ministère des infrastructures des transports terrestres et du ñu war a def benn formation boo xam ne en formation en sécurité routière mu nekk benn ndaw bi su ko jox moo tax bañ ko commencé gis nga boobu ba léegi nit ñi ñu ngi ñëw fi fees fi dell mu ngi war a jeex le 27 incha allah te foofu noonu ñi ci war a déposé mooy tey ñi nga xam ne dañoo am ans ba ans képp koo xam ne ans ba ans mun nga déposé képp koo xam ne nag amoo âge boobu noonu munoo déposé ñuy rappeler aussi aussi lii département bu ne da cee am quota sunu quota mu ngi nekk trois cent quatre jeunes yu ñu war kon donc département bu ne dafa am quota tous les départements Sénégal nag parce que soo xoolee actuellement ñëpp ñu ngi fonctionner en même temps donc pôle emploi boo dem ñu ngi ci recrutement bi nga xam ne tey 3FPT moom moo ko jiite en collaboration avec euh, la direction de la formation professionnelle du ministère de l'emploi. moom nag itam dikkaat na ci wàllum suivi bi muy nag pàcc yi nga xamee ne ñoo war a topp ci wàllum recrutement bi ak it li nga xamee ne mi ngi soxal njëriñal permis boobee ay kàddoom ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. suivi bi tey su ñu defee ñoom seen dépôt de candidature d'ici le 27 après ñun le 28 dañuy defar dossier yëpp le 29 comité de sélection bi réunir bi nga xam ne préfet di département moo ko jiite suñu réuniroo daal di def sélection des 304 jeunes yooyu ma la wax suñ ko defee ba pare envoyé ko au niveau de Dakar léegi suivi muy revenir kañ lay formation bi di tàmbali fan lay amee durée bi lan lay doon mais lépp day nekk benn chaîne de communication boo xam ne ñun ak waa ministère la parce que man mii di wax ak yow je suis le technique toogal fi ministère de l' emploi nekk le coordonnateur di liggéey ak préfet donc lépp loo xam ne tey moom mooy suivi ñi nga xam ne dañ leen sélectionné ñoom dañuy nekk au courant à tout moment. def formation bi. parce que si lañ

lañ def donc affaire bi dañ ko prolongé ba le 27 am na ñoo xam ne a ñun suñ leen waxee dañ ko jël si ay sources yu fiable donc li ñu leen ñaan daal mooy dal tey suñ ñëwee département bi yëpp la 14 communes yi foo mun ti bokk mun nga ñëw nga enrôlé maire yooyee nag mu daal di junju tax nañu ni tamit nag dékk nañu suñu micro rek maire bu commune bu Kër Socé moom itam nag mu ne yëg nañu rek programme bi xam nañu nag njëriñ li mu mën a nag daal di gunge ndaw ñi gunge waale état bu Sénégal bi ay Ndiégane ma ngay fàttaliwaat jaaruwaay bi ci micro noa bi programme yi nga xam ne l'état du Sénégal jóge ko ci ministère de l'emploi du ministre Dame Diop collaboration avec le ministère du transport terrestre ñu organiser benn programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes tuddee ko xëyu ndaw ñi ñu jot ci information bi mën a dem inscrire pour bokk ci formation chauffeur yooyu nga xam jëm ci wàllu sécurité routière gannaaw formation boobu nag yëpp kuñ ci sélectionné dangay am un permis de conduire donc mu nekk loo xam ne nag département Kaolack ñu ngi ci am quota boo xam ne trois cent quatre formation chauffeur la donc nag li nga xam ne ñun moo ñu intéressé en tant que maire mooy fexe ba suñu ndaw gox ñi nga xam ne dem nañ ba quarante ans comme ni ñu ko waxee donc ñu fexe dem ci fi nga xam ne moom mooy espace service bu Kaolack comme ni ko le préfet du département informé pour inscrire objectif mooy fexe ba suñu ndaw gox vraiment bokk ci ñun aussi tim lépp luñ mën a def en tant que maire pour accompagner programme yooyu nga xam ne son excellence mu ngi koy def vraiment loolu ñu ngi ci mais également di sensibiliser ndaw ñi pour que ñu mën a bokk ci programme yooyu xam nga sécurité routière dafa am solo parce que ku ne xam na ne yoon bi bëri na ay jafe-jafe souvent donc bu ñuy jëlee ndaw ñi former leen ci wàllu sécurité routière dina tax ñu mën a xam lu bëree bëri bu ñuy dawal lan lañ war a éviter quels sont les signes signalisation panneaux yi nga xam ne yëpp war nañ ko respecter parce que aussi nekk loo xam ne lu am solo la kon je pense que ndaw yi nga xam ne dugal nañ leen ci kanaal boobu dina leen dimbale ñu mën a éviter yenn yi mais également mën a fexe ba aar doomu aadama yi yi nga xam ne vraiment ñooy nekk ci secteur transport bi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ña nga ca taaxum kaw ma ñu euh, duppe Cheikh Imam si Cissé wéy ba tey ci jukkim xabaar yi li itam euh, junjoon naa leen ko euh, jàmm ja gàddaayoon nag dikkaat na rek ca biir mairie bu Kaolack bi jàpp leen ne itam ne jamono ji nag coow la yëpp daal dinay fay gannaaw nag ab penco bu ñu doon amal mu doxoon itam ci diggante travailleurs yi syndicalistes yi ak seenuk maire bii di Serigne Mboup fa ñu mujjee ca waxtaan wa nag mooy juboo joxante loxo ba noppi itam mu jox leen suukarub koor Cheikh Ababacar Dieng juboo am na jàmm dellu si diggante liggéeykat yi nekk ci mairie bu Kaolack ak seen njiit tey di Serigne Mboup ndaje gu yaatu la ñu amaloon ci ëttub commune bu Kaolack conseil municipal yi fekkee ko ak travailleurs yu bari Serigne Mboup nag wax na fi ne xët-xët bi fi amoon ba ñu doon jaabaa jongi turam ci jalgati ndekete dara jógewul ci moom secrétaire généralu maire bi ci boppam mooy def lu ko neex. salaire yii ñu wax tamit 31 bi ngeen waxee fii ba noppi. dafa am incompréhension bi woo yónnee ko huissier bu dikkaatee ne nangu naa pour liggéey si jox ko salaire bu nee nag man damaa am beneen liggéey ba mënumaa liggéey dem leen ci RH mu négocier départ parce que loolu lay jaam loolu laa ko wax bi ma demee nag yónnee wuñ huissier ma ne leen ne huissier bi ñëw xëy na diggante bi ma waxee ne huissier bi ñëw ak diggante bi ngeen kii ci la am mais keroog la inspecteur woo ma passe ma huissier bi ma ne ko demal si kon nag man maa ngi wut jàmm yi fi nekkoon a ndax ñu ngi koy yàqal man waxuma ne compétent wu leen man dama ne retard salaire yi incompétence la wala sabotage bu amaatee tamit ñiy defar salaire yi ñoom mun na defar salaire yi wala dañoo bëgg a saboter sama liggéey parce que man bu ñëwee du taxaw ci démb ci 18h wala 20h ma yónnee salaire ru 31 xëyee jox naa e waaye man waxuma ne yéen compétent wu la. lii it nag moo ko doon tuumaal ci ay wax ne moo ko yëkkati jëmale ko ci travailleur municipal yu commune nu Kaolack nee na dara ci waxam lañ teggi tegee ko nu mu la ma wax mooy lenn moo ma mën waaye même bu munul liggéey danaa ko former pour liggéeyal ko démb bi ñuy def rectification budget 10 millions moo fi nekkoon pour formation dama neen nañ ko def 35 kon dama bëgg waxuma la formation sax bu munul sax nañ ko jàngal parce que dafa wuute sama gis-gis CCBM cœur de ville bu nit munul dama naan ko demal wut liggéey feneen dama lay daax mais fii mairie man maa am obligation ki ci mbedd mi wutal ko liggéey kon ki fi nekk di liggéey bu munul nañ ko jàngal ba mën liggéey li may jootee kenn rek mooy ku nangu wutal liggéey waaye ku munta liggéey te bëgg formation bu dee jàngiwaat sax mën naa laa fayal nga dem jàngiwaat boo paree nga ñëw amal na loolu man naa lii firndeel na juboo am na sëriñ Mbuup joxe na suukari koor liggéeykat yu ci mairie bi ak mboole mi conseil bi bokk ci commune bi ci nii nag diggante yëpp mu jeer a tax ñëpp di fo di ree kon nag jàpp leen ne li maire yëpp di a doon def mën naa ko def te loolu lañ ma digal waaye defuma ko lan lañ ma digal mooy wutal say nit yu wër la alxuraan daf ñu ne mu ne seetal sa noon bi la gën a bañ nga defal ko lu baax mooy nekk xarit bu gën a jege ci yow kon nag jàpp ma kenn noon ku ma jàpp tamit xamal ne baal naa la nañ fexe nuñ mën a liggéey gi ndax kër gi nag xam leen ne bu leen waa Kaolack gën a gore hôtel bii ngeen di am kii ci mbedd mi mooy fay juuteem kee di fay kantinam jakarta bi di fay 2000 am te moom amul obligation ne naa am li am te yéen am ngeen obligation seen salaire maire bi ci Kaolack nag bi mu jeexal ay kàddum mu artuwaat leen donte ne nee na na coow li jeex kon nag man na jeex ñu waxtaan waaye nag ñàkk liggéey moom duma ci ànd ak kenn ca kàddoom yooyee nag ca la ñuy des rek Cheikh Babacar Dieng ndaxte nag juboo ba ak bennoo ba itam nag waxante dëgg leeral ci ay poñ yu bare bari moo ko daal di jiitu moom nag maire bi dikkaat na li mu euh, jàppoon wutee geeg li ko indi woon ci wàllum euh, retardu salaire yi moom euh, sëriñ bu ba tey mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. man maa ngi doon campagne le 15 xool naa ci presse avant may jël service kaas ngeen ma ne salaire yi dafa tardé ma ne gestion bi moo baax ba wax secrétaire général bi ngeen ko wax bi ma ñëwee loolu laa njëkk a lijjanti ma laaj ko damay wax lii dëgg rek mu ne ma ñoom dañ maa tooñ mais porte plainte naa leen ah, a

suur tamit mën naa ko yëkkati jox ko ñeneen te dama ko yëkkati jox ngi fay lu mat 20 salaire laa ko yëkkati ko jox kon du ko tardé le 6 lañ ma ko jox maa ngi war a jël avion 2 heures du matin fii ba ba may àgg te xam ngeen dugg ci oto di xool da day joxe ay neer mais amoon solution ba ba may àgg aéroport ay minuit la pare ma joxe ko dem kon bu ma xëyee lundi ba dégg coow dana am lu ma metti waaye tiituma ci parce que dama ne lii d'accord ñëw waaye bi ma ñëwee ñoom ñu ne yëguñ ko gëm naa leen loolu def fi am vingt cinq pour cent yi ci rajo bi laa ko déggee ndax ki nga xam ne nii xoolu dañ ko bind nekk si man prime de prime lu tax vingt personnes ma ne prudence mooy lan mooy ñuy dawal oto mooy leen waa ku dawalu oto ma laaj ba xam taxi bi la ne ndax dawal bi la wala ku nekk chauffeur dañ ma ko jox ñu ne naa pour dawal bi la ma am ku ma fii mu wax ma kayit baa ngi ci man léegi signé naa ko joxe naa ko waaye maa ko téye woon waaye beneen bu ma fi téye amul mu nekkoon ay kàddoom moom meexu Kaolack bii di Serigne Mboup moom mi nga xamee ni itam ne moo di première adjointe au maire ba rafetlu na nag mbir yaak na mu mujjee ndaxte nee na itam dem nañu rek ba gis ne réeroo amutoon ñàkk waxtaan moo ca amoon te it maire bi a dégg na revendication yi dana ca taxaw Ndiaye Mbow Tall la ñuy teewlu ay kàddoom vraiment comprendre nañu li nga xam ne mooy ndëwu problème bi yëpp mais gis nañ ne dysfonctionnement bi yëpp foog lu bëri am na ci foog bi nag li ko indi mooy manque de communication manque de communication boobu yàlla dimbale nañu ne chaîne yi ñu teg gëm nañ ne dootul amati ci kaw loolu vraiment ñi nga xam ne mooy maire di bureau municipal di conseil municipal bi yëpp ñu ngi remercier personnel bi bu baax ci seen maturité ci seen engagement ci seen bonne foi parce que lii yëpp boo leen ko doxalul woon xëy na amaana jàmm bala muy dellu dina xaw a metti vraiment wane ngeen ne aussi que ne personnel bu mature moo nekk ci maire bi kon loolu duñ ko ñàkk bañ a wax ñuy remercier aussi maire ci esprit de dépassement wam ci leadership bi mu am ndax kilifa soo amee sa kër kër gi yëngu doone maay kilifa nu ma neex laay doxalee ataa yoon lu mu la may rek nga jël danga koy tegaat ci table ji delloo nit ñi cër yi te loolu la def delloo nit ñi cër yi weesuwut woo conseillers yi ne leen jéem leen ngeen ut jàmm delloo nit cër yi weesuwut na syndicat yi ñëw na personnel bi ñëw na ku bëgg a ñëw ñëw nga wax ko lan nga ko reproché moom bi ñu waxee li leen metti dem nañ ba gis ne vraiment que nëb yi problème yëpp nekkul ci loo xam ne maire teg na ko fi wala maire def na ko ndax maire lu dul jàmm rek bëggu la jàmm rek moo mën a dox ci kër gi te loolu moo fi war a am donc ci kaw loolu ci biir dialogue social boobu ñu instauré maire mi ngi woo personnel bi à des rencontres périodiques yo xam ne chaque deux semaines au grand maximum war na ñoo mën a toog réévaluer xool lan moo leen metti lan moo lañ lañ war a corriger lan mooy indi plus rendement yëpp c'est avoir plus de rendement donc ci kaw loolu maire mi ngi invité personnel bi à plus d'activités yoo xam ne dina indi cohésion ci biir group moom nag mi ngi leen di yëgal ne point de revendication yëpp dégg na ko yim ci mën a saafara yëpp dina ko saafara te defe naa bi leen gën a soxal yëpp muy seen revalorisation ak seen plan de carrière ak avancement yooyu yëpp dina ko étudier ak syndicat yi toog syndicat ya fa nekkoon itam nag ca jotaay boobee bokkoon na ca nag waa santé régional bi ñoom nag seenu ko secretaire général ba dalalaat na rek xelu maire ba jaajëfal ko ne itam nag jamono ji lépp leer na ndaxte xam nañu fi dëgg gi féetee ak ñi doon xam ba taal bi daal di rafetlu itam a jotaay baak na mu demee woon du Ndiaye itam ne jàmm ji moom Ndiaye Mbaw taal def na ci ay jéego yu am solo ay kàddoom ba tey ak Cheikh Babacar Dieng. avant ñuy ñëw ci monsieur le maire Serigne Mboup au fond di cœur te li ñuy wax lu ñu gëm la bu ñu ko gëmuloon duñ ko wax madame la maire première adjointe madame wax dëgg yàlla liggéey ci liggéey bu mucc ayib pour diggante bi ratax pour jàmm am coow li amee fekku fi monsieur le maire Serigne Mboup moom moo woote ci kaw ñu toog ñu waxtaan ñu dem inspection ñu waxtaan bi maire ñëwee aussi mu créer condition yi nga xamante ne bi war nañu mun a toog ñu waxtaan maire fenn rek laa d'accordul mooy bi ma waxtaan ak yéen sama xel xaw na dal na sa xel dal maire na sa xel dal si nga lii barke Baye Niass du daray politique ñu si désolé du daray politique ñun amul benn doomu aadama bu nga xamante ni mun nañu manipuler sur le plan politique ba ñuy caaxaane intérêt travailleurs yi amul affaire boo xamante ni bi kenn prévoir ko woon kenn ku ko prévoir woon kenn yu toog gisuñu seen salaire ñu génn ci biti loolu rek la mais du leneen bañ toogee waxtaan aussi retrouvé wu nañu ba jàmm dellu si na ci kër gi ma bëgg tey ci suba à 13h def nañ assemblée générale waroon nañ la filmer li fi nekk ci doomu aadama te ñëpp nekk ay travailleurs bu commune bu Kaolack remercier nañ la wax gaa yi ni li fi xewoon incompréhension la manque d'information la parce que boo jiitee ay nit nga nekk tampon entre le maire et le personnel tu as une obligation de donner des informations bu fekkee dafa am rétention d'information loolu mooy andi coow mais li nga wax lépp leer la démb ñun sax dañu xaw a sax rus parce que xam nañ li fi xew yëpp yow amoo ci benn part de responsabilité en âme et conscience amoo ci amoo ci benn benn part de responsabilité incompréhension la waxtaan nañu tey ci suba tey wax nañ leen ni leen ñun duñu défendre ku dul liggéey li ngay wax fii yëpp man la ma ca waxoon ca jamonoom ba fii ma taxaw di waxante yow je l'assume amoo ci dara lu ma ciy daw nag mi ngi sama portable la ma waxoon balaa ngeen di ñëw ci lépp lu fi mun munti xew mu génn ci sama gémmiñ bi man Abdou Ndiaye dama koy assumer mi ngi fii te daw ma ci dara lépp am lépp moo am aw ma dara lu ma ciy daw léegi nag nous nous sommes prêts parce que du ñu nekk ay liggéeykat di liggéey ci mairie bi di xëy huit di wàcc seize heures wala dix sept di cautionné koo xam ne dafa tëdd këram jaaxaan ñàkk bañ a liggéey ñu di ko fay salaire dama ni fin du mois boo demee crédit mutuel da ngay yëngu ci yàlla buñ la nee ñi ñëpp mairie la liggéey yow da jaaxle nga ni ñuy fan lañ nekk ci mairie bi mais loolu on l'assume am jotaay ba moom nag nee na rek nangul na Serigne Mboup ne nitu jàmm la ndaxte nag coow li li muy bari bari loxoom nekku ci te it nag wax na ne ñoom syndicat yi du syndicaliste yi du ñu nangu rek di far kenn ci lu dul dëgg woote na itam naka ngir ñuy gën di bari rek ay toogaayu waxtaan ba yu mel nii bañ a amati Cheikh Seck la ñuy teewlu ay kàddoom. monsieur le maire je pense que tey jii ku fekkee wutoon waxtaanu démb bi fekkee waxtaanu tey bi rek mën na am suffisamment les bonnes notes et les bonnes informations pour la nit ku pare ku tàllal ñëpp loxo la nitu jàmm nga ci dox jàmm nga ci wax jàmm nga ci jëf te démb bi ñu toogee ak yow wax dëgg yàlla kuy waxal yàlla démb sa yaram daw na te waxaat na ko léegi lépp loo xam ne xew na fi ñi ngi wax en âme et conscience ne lépp am na mais duut ci responsabilité am te leeral na ko léegi ñëpp di ko dégg et ñu wax ne nag am nañ indépendance su fekkoon ne loolu muy wax amul dara lu ko expliquer lu ko confirmer je pense que suñ noppee it mën nañ koo ñàkk a mais ñi ngi li mu wax yëpp benn bu ci nekk justifier nañ ko toppal nañ ko suñ bopp ba gis ne wax dëgg yàlla amul ci benn responsabilité maire ñu ngi lay gërëm ci loolu monsieur le maire li amoon fii lenn rek moo ko indi manque de communication personnel bi dafa am droit à l'information personnel bi dañoo war a di xam li xew suñ ko xam bi rek jàmmaam te disposer nga aussi pour jox nit ñi la bonne information kon c'est sûr que problème dootu am yàlla bu problème amati ci mairie bu baax donc monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant ci disposition bi nga ñu wax la ne la wax nañ la ko am syndicat di ko défendre syndicat bi muy wax waxutoo ñoom syndicat bi muy wax ñii lay waxal personnel bii toog fii lay waxal. personnel bii nga xam ne service boo leen fekk jaaral ci santé jaaral perception demal trésor demal mairie demal partout foofa dem da nga fekk ne ñu apte lañ ñoo xam ne ñi ngi def seen liggéey ni mu waree di xëy heure di wàcc heure ñun ñooñu la ñu waxal personnel boobu la ñu waxal parce que personnel boobu rek monsieur le maire ñoom rek ñoo la mën a accompagner pour nga wér mën a réussir sa mission mission bi c'est une mission transversale mission bi ci compétence yu bëri la nekk ñoom ñooñu ñi ngi ci compétence yooyu yëpp monsieur le rassuré personnel bi dana la accompagner dana la gunge dana la dimbale dana la jàppale ba nga fi nga jëmal Kaolack nga yeggale ko parce que ci Kaolack lañ bokk te bëgg nañ Kaolack avancer. voilà. mi ngi noonu yegg si nañu nag ci ponk yi nga xamee ne moom la ñu jagleel nag weeru koor gi junjoon naa leen ko li ñu seetlu nag mooy ne rek ci jamonoy koor gi lim bu takkoo takku nag ci gone yu jigéen ñi bu ñu àggee ci koor dañu daal di def rek li nga xamee ni moo di muuraay denc itam li nga xamee ni moo di perruque yi waaye nag ñaar wala ñetti fan jàpp li nga xamee ne moo di koor gi nga gis ne itam dañuy delluwaat rek ci perruque yooyee bàyyi li nga xamee ni moo di muuraay bi kenn ku nekk ci askan wi nag ak na mu koo gisee njàngat li yi ak Alioune Badara Diop. waxtu bi ñu toll nag coppeeku bu bari dañ koy faral di gis ci jigéen ñi loolee dem ba ci colin gi wante bokk na ci li nga xam ni mooy muraay gi ku wax weeru koor nag wax weeru sellal naam tax ñenn ci jigéen ñi ñoom dañu jàpp ni weeru koor kese lañ war a muur seeni cër yaay booy bi moom di wuyoo ci tuuru Fatou baay Niang mu ngi neenal bi lee xalaat ndaxte mënul nangu ni sunu réew bi di Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañu. xam nga situation moo gisee rafet xam nga xale yi muuraay moom pour toujours dafa war am rek pour ñoo xaar ba koor gi ñoo ñu di ko def mais nag ñoom ni ko gisee ñoom dañoo jàpp ne ñoom weeru a muur ci la ñu war a julli te du loolu nag moom man de su ma soñoon muuraay gii dañ ciy dëkk parce que réew mi ñu nekk réewu lislaam la réew moo xam ne dañ ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañ li fi waroon daal moom muuraay gi dafa waroon a dëkk waaye xale yi nag moom sellal lañ ko tuddee weeru sellal ñoom daal waxuñu ne weeru koor weeru sellal la dañuy sellal su paree rek ñu delluwaat ci liñ nekkoon. xale bu jigéen bi moom ay atam di toll ci fukk ak ñett da koy gis rek naw ko ci colin bi mu solu solu gu yéew rob bu weex ak fulaar bu bëla ca bopp ba di wuyoo ci tuuru Zeyna Diop moom moomulee bokk ci ñi nga xam ni weeru koor bee tax ñu muuru ndaxte nee na li yàgg na ci moom. man sans weeru koor bi damay muuru rek. koor gi neex na de waaye am na ñoo xam ne dañuy muuru dañuy bàyyi ba koor gi ñëw ñuy ñu toll nag ñi di jaaykat yi ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp baax a baax wante nag profité nañu ci ñaaxaale ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi ñu continuer solin gi nga xam ni moom la lislaam santaane te noonu lee li nga xam ne mooy njëg yi yomb na lool bu ñu sukkandikoo ci jaaykat bii di wuyo ci tuuru Momar Diagne. wax dëgg yàlla liggéey bi ñu ngi ciy gis suñu bopp ndànk-ndànk waaye liñ ci gën a neex maanaam moom jàllaa bi ak fulaar ak mbëlfa yi ndax xale yi nga xamante ñoo koy sol suñuy jarbaat lañ suñuy doom suñuy rakk kon bu delluwaat ci yàlla ñu commencé changer seen comportement di solu colug jullit colug yiw loolu même mënun buñ ci amul njarte si nañ am contentement surtout ma nag ñu ngi ciy jot suñu wërsëg ñu ngi ciy am xol bu sedd guy di ñaan nag bu passé ñu bañ ko yemale ci koor gi rek ndax jaamu yàlla yemul ci koor rek yàlla moom dañu di digle lu baax di aaye loo xamante ne bi yiwul surtout ma col yi bi am na ñuy jaay mètre mille francs am na ñuy jaay mètre deux mille mbul fa yaa am na en coppeeku bi nag ci weeru koor gi ñu tollu dafa yaatu lool ci colin gi ak yeneen i ni mel wante liñ ci gën a bàyyi xel mooy muuraay gi te loolee doon na loo xam ni lislaam da koo santaane. jaajëf Alioune euh, Badara Diop boobu boobule élément nga xamee ni itam ma ngay wax rek ca colko gi euh, te muuraay gi itam nag gën ci euh, fës des ba tey nag ci wàllu weeru koor gi ñaari weer yi nga xamee ne nag ne dañoo daje andi na nag ay coppite yu bare bari ci wàllum doxalin ci média yi bu dee nag ca diwaanu Ziguinchor foofe nag waxtu ak liggéey yi émission yi ak it li nga xamee ne moo di ak programme yi foofe nag lépp dafa daal di am ko coppite ci atam ren di Mouhamed Sagna. ren ñaari weeru sell yi ñoo daje woon ngir askan wi mën a xam bu baax a baax bind yu sell yi nga xamante ne bind nañ ko ci téere yi rajo yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor dañoo andi ay coppite ci seen programme ci yooyu programme émission diine yi ñoo fa gën a bëri. mois de Ramadan Euh, mois de Karim ñoo àndoon alors euh, ñu dañu def ak de sorte que ñoo ñëpp que ça catholique que ça musulman yi pour ñi ñëpp ñu am seen programme normal ñu déroulé seen programme normalement. jot nañu andi ay changement comme nuñ koy defee chaque mois de Ramadan ak mois de Karim dañuy indi ay coppite yu ndaw parce que comme nuñ koy waxee mois de Ramadan mois benn la moo tax chaque mois de Ramadan dañuy def réaménagement pour gën yokk. émission religieuse yoo xam ne day am si rajo bi donte chaque vendredi la doon am ak chaque dimanche mais mois de ramadan su jotee wala mois de carême dañuy def réaménagement pour renforcer émission religieuse yi. ci ramadan bi également ci télé bi comme ci rajo bi am na ay coppite yu ñu def pour euh, surtout waxtaanu diine. ay coppite tam nemmeeku nañ ko ci euh, waxtu liggéey bi. ci waxtu liggéey yi tamit comme niñ koy defee at bu jot dañ doon baax di libérer jigéen ñi bu deux heures jotee ndax ñu mën a dem préparer ndogu yi affaire yooyu seen kër. à partir de quinze trente dañu bàyyi suñu jigéen ñi ñoom ñu ngi dem. pour permettre ñi ñi tam dem préparer ñu war a togg dem togg ñu war a waajal dem waajal. ci weer bu tedd bi ay jàngam alquran wala sax ay chants religieux ñoom ñoo gën a bëri. ci programme rajo yi. jaajëf Mouhamed Sagna ci wàllu diine joojee sax naka ca la ñuy des rek daal di wax jëmee itam ci beneen seetlu li ñu seetlu itam mooy ne nag ci jamonoy weeru koor gi concours njàngum alxuraanul karim yi nag dafay gën di yokku moo xam rek ci biir réew mi la wala ca biti Sénégal leneen itam loo xamee ne daal di nañu koy seetlu mooy ne Sénégal ma nga cay def ay jéego maanaam daal di faral di ca jiitu am ci nag taxawaay bu mucc ay yipp loolee nag di wane itam nag qualité njàng meek njàngale mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Mouhamadou Lamine Fall ngay tontu laaju Cheikh Tidiane Diagne. waaw Sénégal moom réew la moo xam ne alxuraan dafi sax depuis junni at mi ngi fi réew Afrique yooyu ngay wax booba léegi mi ngi évoluer di def ay qualité léegi egg nañ ci ay niveau yoo xam ne ay niveau international la ci wàllu qualité ci wàllu mokkal gi ñu koy mokkal ak wàllu

plusieurs ko bind te du ko gis am na ko xam ne na ko bind te du ko gis mais bu jàngee nga ne njàng mi am am na tax tax mais mën na ko bind te du ko gis ak yar ba yar ci biir daara ji en tout cas daara yi plusieurs types la yoo xam ne dañ jël noonu globalement dispositif bi dañ jël comme ni mu bindoo kenn du wax ne dañuy jël bee bàyyi loolu tam aussi beneen débat la xam ne mi ngi ubbeeku pour ñu bañ nit ñi assentir ci qualité bi ne voilà li mënul nekk qualité moom toujours exception. yegg si euh, nañu nag ca la nga xamee ni moo di yóbbalu euh, koor gi euh, jamono ju nekk itam ñuy tànn rek ab saar oustaz Mouhamed Sow di ca waxtaan ak soxna Ndeye Fatou Cissé. saar bi mu ngi wàcce ca Madina ndaxte mu ngi wàcce gannaaw xare Badar kon saar bi madaniya la ay laayam juróom-ñaar fukki aaye ak juróom maanaam juróom-ñaar fukki verset ak juróom loolee saar bi am waaye lan mooy jubluwaay saar bi saar bi lan lay waxtaane saar bi mu ngi waxtaane ndamu bi nga xam ne borom bi jàlla waala ndamu na ko ci kaw jullit ñi ci dimbali leen ci seeni kaw noonu ca xare badar waaye leeral lan mooy doxalinu borom bi jàlla waala ci pour nga am ndimbal ak pour ñu gañe la borom bi jàlla waala daa am ay mbir yoo xam ne moom lay doxalee nga jaar ci pour mën a gañe boo ci jaarut mën nañ laa gañe kon saar bi waxtaanam yépp mbirum xare la mbirum jihaad la kon dafay leeral borom bi jàlla waala moo ci ndamu ci kaw jullit ñi ci dimbale gum leen yóbbu leen ay malaaka yoo xam ne ñëw nañ di xeex ak ñoom ba duma ki nga xam ne mooy yéefar bi te mooy noon bi waaye di leeral doxalinu borom bi jàlla waala saar bii day leeral doxalinu borom bi jàlla waala bi nga xam ne moom lay doxalee bi mën a ban cee jaar dimbale way gëm ña waaye tam ak doxalin boo xam ne boo ko wàccee rek mën na laa jural ab daan wala ñu gañe la kon li mooy tënkub saar bi incha allahu taala bu ngeen àndee ak ñun suba ci waxtu bi ñu tofal leen saar bi nga xam ne mooy saaru tawba te moo ci topp bitim réew yegg si euh, nañu ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi biti réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf Ngone Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy doore réew bu Mali wax ci ki nga xam ni mooy Sogel mayga moom moo la mu ngi rassuré lii di conseil de transition bi ci wàllum jàppandi ngir ko wax ci li nga xam ni mooy chronogramme électoral bi foofu ci réew bu Mali ci fan yi weesu ci lu tollook ñaar fukk ak ñeenti weer mbir moom lu jot nañ ko annoncé ci teewaayu membre yi nga xam ne ñoo bokk ci conseil national de transition bi bokk ci organe administratif bi. xabaar yi bitim réew. démb réew bu RDC Congo wax ci migrant yi nga xam ni ñoo nekk ca Katanga ñoom moomu la amaloon nañu benn ndaje bu yaatoo yaatu ngir toog waxtaan mbir moomu la muy amoon ci ajuma démb ji fële ca yi ndaje boobu lay woon leen lu dul jéem a réconcilier li nga xam ni mooy yenn gox yi nga xam ni. dañu tasaaroo wante ci fàttali mbir moom la mu ngi amoon ci teewaayu kii di premier ministre bi di Jean Michel assises yooyu la ñu amaloon ndaje woon ministre yu bari bari ak bokk ci élu yi foofu ca Katanga ak fii di Kaysaay ci njàppandalu ki nga xam ne mooy njiitu réew mi ngir kat jàmm mun a dellusiwaat ci diggante ñaari région yi lee. xabaar yi bitim réew. dem ba bu Tchad ginnaaw tension bi nga xam dafa yéegaat ci wàllum date bi nga xam ne jàpp nañ ci wàllum dialogue national inclusive bi jëwriñ ji nga xam ne mu leen dénk wàllu affaire étranger foofu ca réew bu càdd moom mi nga xam ne moo jiite délégation gouvernementale boobu lee foofu ca Doha jot na déglu askan bi lee ci bi nga xam ne amaloon nañ école inclusive bi te ñu amaloon ko ngir kat toog waxtaan wante ci waxtu boobu la ñi nga xam ne ñooy daw fépp ñoom moom la am na ñu leen teewaloon ci biir jotaay foofu ca jamee na mu mel ni ndaje boobu la liñ ci doon ut am nañ ko maanaam jéem a fexe ba kàddu gi doon benn. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Gabon ki nga xam ne mooy président bi di Ali Bongo moom moom la jot na def benn tukki nemmeekum bu njëkk ginnaaw bi mu toogee ñeenti at yoo xam ne génnut mbir moomale mu ngi am ci ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril ci fàttali kii di Ali Bongo ginnaaw ab l'accident bu métti boo xam ne defoon na ko mu jàppoon ci li nga xam ne mooy vasculaire cérébral bi mu toog ñeenti at yoo xam ne génnut te mu amaloon ko foofu ca Makoku bokk ci penk réew mu doon tukki nemmeeku boo xam ne amaloon na ci benn ndaje bu am solo àdduwaale ak askan bi ak situation li nga xam ne mooy réew Gabon xabaar yi bitim réew jeqalee xibaar bitim réew ak réew bu France wax ci ki nga xam ni mooy Carlos Ghosn ginnaaw bi ñu ko defee benn mandat d'arrêt international euh, ci fàttali moom moom mooy patron Renault ginnaaw bi ñu ko jàppee ci yenn ci luubal ak wàllum blanchiment ba tax na njiitu Renault boobule di Carlos Ghosn moom moo la teg ko benn mandat international. xabaar yi bitim réew. jërëjëf soxna foofu la ñu ci li nga xam ni mooy xibaar bitim réew yi ak kenn dala jàmm. yaram Bakk Bangook xabaaru ah, tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu ma ko auditeurs yi jërë ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak Ligue Pro ki fi nekkoon DTN nag moom fu mu toll nii ginnaaw bi mu jënoog taskatu xibaar yi démb wax na ni nag jot na ngir ñu delloo njukkal waaye tamit gën a jox gëdd li nga xamante ne moom mooy sunu football di sunu championnat local bi ginnaaw bi nga xamante ni Sénégal gagné nag Coupe d'Afrique des Nations fo club yi nekk ci suuf nag daal di yëkk koppar yi nag mu wàcc si ñoom kii di Amsatou Fall di directeur exécutif bu ligue sénégalaise bu football professionnel fukkeelu bëccëg bekk ci desani ci ligue bu juróom waxtu jotee càmbaar moo laa lekk jaraaf Dakar ca Fodé Wade Teungueth FC di laaleeg Guédiawaye football club ca Ngalandou Diouf AS Douane di laaleeg génération foot mooy bi ca Ibrahima Boye US Gorée di laaleeg Mbour Petite Côte ca stade municipal ba ca Mbao suba SNEIPS moo laaleeg Casa Sport ca Maniang Soumaré Ñamour bu Louga di laaleeg Boury Ndiaye AS Pikine dina lekk Linguère ca Alassane Djigo bu dee lu soxal Ligue bi nag jamono bu Fatick ma la lekk Oslo FA bu juróomi waxtu jotee ca Massène Sène NGB ñaari tali dina lekk Demba Diop ca Amadou Barry Walidane dina lekk Amitié FC ca Maniang Soumaré ci waxtu bu jëkk bi ñaareelu waxtu bi nag Thiès FC moo la lekk Sonacos bu juróomi waxtu jotee suba Wakaam moo la lekk Renaissance Stade Mbour dina lekk ak Port ca Caroline Faye fukkeelu bëccëg bekk ñaar national une poule B ak RS Yoff bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili suba ci poule A bi nag ETICS bu Mboro mooy laalek AS Saloum ñu dem ca dënd ko Europe fanweeri bëccëg bekk ñeenti Ligue 1 France Lyon mooy laalek Montpellier bu ñetti waxtu jotee Saint-Étienne di laalek Monaco bu juróomi waxtu jotee PSG di laalek Lens bu juróom-ñaari waxtu jotee fanweeri bëccëg bekk ñeenti Premier League ca Angleterre Arsenal di laalek Man United Man City di laalek Watford bu simili fanweeri bëccëg beeg euh, benn Bundesliga Cologne FC dina lekk Armenia Eintracht Frankfurt dina lekk Hoffenheim bu benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili Fribourg dina lekk Mönchengladbach Bayern Munich dina lekk Borussia Dortmund bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili fanweeri bëccëg beeg ñeenti calcio italien Venise dina lekk Atalanta Bergame Torino dina lekk Spezia Inter dina lekk Roma Hellas Vérone dina lekk ak Sampdoria Gênes mbokk yi waxtu bi jot nañu sob ak yéen ci seen rubrique tàggat yaram ak koor. seen rubrique tàggat yaram ak koor. Alfayda bu fekkee deux heures après rupture du jeûne da nga bëgg a def sport na fekk nag nga lekk un repas consistant et complet parce que ti toog lekkoo journée bi yëpp nga dogee tuuti ay mburu wala kii rek dem def sport non reeral sa reer consistant d'abord boobu xam ne dafa am surtout ay aliments yu lay jox énergie mooy li ñoon wax léegi ceeb wala couscous wala pomme de terre féculents yi wala pomme de terre wala mburu wala nga def bouillie à base de céréales am na mën nga ko dogee fondé wala laax notri caakri et autres yooyu daf may énergie parce que dafa am sucre ensuite lekkin boobu aussi na nga si def ay protéines jën wala yàpp wala nen wala légumineuse ñoon wax léegi lentilles haricots petits pois lekk aussi ay aliments yooyu jox vitamine ak ay minéraux mooy fruits frais et légumes frais donc loolu boo ko defee pare mën nga dem def sa sport pas trop intense nga dëggul sa yaram ainsi. ma ngoog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kandaay yu jàmm li ma gënoon a fës si xibaaru tàggat jërëm yi jëf. xibaar yi ci Alfayda. ñu woy ci euh, xibaar yi ak ponk ba ñu euh, jagleel kooru gay moolum géej ak baax a jóob. kooru gay moolum géej o oh, xaaj Ibrahim Gay koor gaa ngi xëccoo di jëm ci jeex DG moo ngi def lu man ngir mu jeex bu gaañu sure ci koor gi moom mi taxaw fi mu taxaw rek du lim bëgg naam waaye seytaane moo ko toppee mbooro moo ngi def cim kàttanam ngir fukki fan yi ñu ne mu bokk ci ñu ñuy goreel ëllëg tax na mu daldi ba caaxaanam yépp uti na ay ñaanaam waaye yëf yi faju ko tus DG conseil la soxla xaaju Amar comme muus na ci la ko jegaleel boppam diis ko ay jafe-jafem lépp ni ko seytaane sonale la bëgg mu dand ko Seydina Omar Cissé DG dégg naa la waaye koor gi fa ngaa topp sa nafsu rek fa maa yaakaar ne li la sun borom dencal ci koor gi fa la hump wala sax bàkkaar bi nga nar a yenu boo xoorut dañ la ko waxut mu kallaf nga paasa caancaañ yi o oh, DG déggati na dëgg tax loolu tooyal xolam ba mënatut a wax gay moolum géej conseil am wan na ko gannaaw chargé nañu ko kooruk teyam jile bakkanam la ci teg ci lay jaabante rek tombek aji di rosi DG xeñtu ko xaj Ibrahim jubali ko yow danga may fonto wala lan ñaata yoon laa la wax sëy boo koy def tijjil bunt bi nit ñi dañ woor waa kaay kaay xam nga lan la jële say bagage tànk koor gi jeexut bu fi ñëwaat dégg nga ah DG ko lépp yekkal na ko xar yi caaxaan faaxe xëccaat kurusam di astaxfirullah rek seytaane nga koy dandu naka muy dugg biróom rek gis benn biteelu Evian bu ñu teg noa bi yaay mooy ko ko yoroon ca la aalooti di koy kajji ku teg li laata muy waxaat noa dikk a <laughs> ah, directeur man teglu fii nga ne ma ne man teglu fii biteel dana raxas raxas ko ak man o oh, DG kenn xamul looy wax ñaata yoon laa la wax lépp luy dagg koor bu mu taxawaalu ci rajo bi e eh, jëla biteel bi lu lekk ak c'est clair noa <laughs> waaw leeru na DG tey jilee caaxaanu ci waaye su aaloo rek yaramam xaw sutante ni biir baa attanut coono mu dem biroom toog wéeru toog tuuti rek jot appel génnaat biro ba jubal kër xalif général naka mu yegg rek gaañu joxoñ ko bokk néeg bi directeur gaawal gaawal gaawal kii te agent la libaas gaawee ñu daa xër ñeenti ganaar yi desoon ci plateau sëriñ bi ñett yi leen di nooy gi daa aju oote nañ sàppoor waaye kenn jilut <laughs> taxawu DG au lieu mu concentré wu ci agent bi li gaañi di wax yépp déggu ko xelam wa mu ngi ko wékk ca geneen ganaar ga des bokk néeg bi tàpp ko directeur directeur xanaa ah, dégg la ma wax DG ah ah ah, ah. ñu xool gouverneur libaas waxatul de o oh, oh, DG doucement doucement li suñ métier la jarul appel da ngeen a tiit rek xam nga lan la génn leen fii ngeen tëj bunt bi bàyyi ma ngi moom mu léemu ko ok DG amul soxla ci libaas lam am soxla jëflante nag moom bu ubbiwaat beneen bool fekkaat fa yeneen i ganaar je tegaat na ci ñaar tëdd nag comme nu libaas tëddee gaañu toog lu yàgg dégguñu dara ñu dajji bunt bi fekk xaaj Ibrahim ak libaas ku ne tàllee ñareet li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, ci Seydina Omar Cissé ah. lan bi kum xanaa Sénégal amut njiitu réew ay waay waay ana kilifay senegal yi ñetti fanu yàlla askan waa ngi feebar mënu ñoo faju ay soxnaa ngi dem ci ay hôpital war xam doom ñu leen di dàq kajji na kenn du leen laal ñetti fanu yàlla waa kër docteur xamal garaw faju jafe askan wi sonn te boobu ba léegi dégguñu njiiti réew mi wala benn kilifa ci réew mi yéy ci yàbbi le quotidien yéen a kaay moo amal seetlu bi ba tax muy laajte ana lan moo waral tekk tekkaaralu suñ kilifa yi tam lii mbir mu garaaw la ah. ci ci wàllu wér-gu-yaram direct news na ko faay dëggal li nga wax yow seetal ca diiwaanu Louga ay soxna yu hëmb war a wasin ñëw ca maternité ba hôpital ba sage-femme yi na leen ñun fa ñoo reewlewut suñu yoon nekku ci yéen dem leen ci clinique yi privé yi wala ngeen dem diiwaanu Ndar yéen kaay bi na ana lu gën a ñaaw loolu tëj ab maternité foo xam ne fa ngay muccal ay doomu aadama ñu naan yooyu yaay fa ñoo geraw ana geraw ba seetaan nit muy dee xana lu ko gën bon dëgg-dëgg nguur gi fa war a ay responsabilité docteur Fallou Samb moo ko wax ci biir suuf ay yéen kaay moom mi nga xam ne fa bokk ordre des médecins yu Sénégal na wàllu a amal a jëfee ndigal li si di quotidien nag xam nga yéen lu ngeen def démb suba ba ñetti waxtu ci bëccëg fa ngeen a bañ na du ngeen jaay hay garab le quotidien yéen a kaay na ko man faa waxut démb waaye bërki démb ak bërkaati démb yëpp kër docteur sénégalais yi ñi xopp tawat fa ñoo sonn fa ñoo jaaxle ndax hôpital boo dem ñu ne la fa ñoo geraw seen urgence yi sax li ñuy wax service minimum presque defuñ ko te nag geraw wax dëgg yàlla seetaan kuy dee yee waru cee bokk mai leer laneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy ne jàngalekat yi ñuy wax ay décisionnaire fa ñoo fas yéene amal geraw weeru mai wi di ñëw si du quotidien ne fa ñuy sàkku ñu dugal leen ci fonction publique bi ba tax ñu fas yéene ñàkkante ak nguur gi yéene kaay bi ne kon jàng meeg njàngale mi nar naa xamati problème de faneen fu xam problème mooy mbootaayu maire yi ci senegal ña farak Macky Sall maanaam waa AMS ya ayaw seetal Aliou Sall Sall xam nga fa jeexal léegi postam ba nag ka ko war a remplacer moo jur jàppante ca seen biir diggante Wuri Baylo Jàllo maire bu Wélingara Umar Ba Moustapha Diop nekk yeneen maire yu bëgg a jiite kuréel ga ñi jiite parti yi wax ay parti gauche fa ñoo deltu ginnaaw seen parti ya fa dee yee parti ya tasaaroo seen doole daal fa wàññeeku torop ci géewu politique bi enquête yéen a kaay na moo ko waral ndax bu ngeen seetloo ginnaaw wàccuk liggéey dans soxo Tanor Dieng ak bàcc li mi nga xam ne moom fa à la ci wàllu politique di leen duñ noppi nag mooy fukki député ak juróom-ñaar ci assemblée nationale fa ñoo taxaw lànk bañ ne coppite gi ñu bëgg andi ci wàññik li mu député yi ci proportionnel bi nee neen ànduñ ci bés bi yéen a ñu ko xamal info yéen a ne fukki député ak juróom-ñaar yooyu fa ñoo taxaw ngir ñàkkante ak Macky Sall li mu bëgg fa ñoo taxaw ca kanam loi ba na ko xalaa mandiir baaj xalaa xalaa doo fi jaar Macky a def nii d'accorduñ ñu nekk ci ak ñàkkante Fall ca mairie bu Ndakaaru yaw seetal Bamba Fall fa wax Barthélemy Dias na ko hëy yow laay waxal faa bëgg nga déglu ma jël gi nga jël ay Guy Marius Sagna capitaine Touré ni nga jëlee daal ci biir mairie bi d'accorduma ci ak ni ngay jëndee oto ak yeneen yi ni mel Barthélemy Dias na ko faa bëgg nga may ma tontu la gis nga man faa gisut benn texte boo xam ne fa may xaayee sama sañ-sañ ti jël ab liggéeykat waxuma laak ab décret boo xam ne tamit fay tere jënd ay oto wala su loolu amee tamit xanaa terewut ñu ko te gis nga man waxu ñàkk fay di caaxaan caaxaan yi sax faa ci nekkut ma a def kenn mënu ma koo teree def def ci mairie bu ndakaaru bii bu lay leer rek yow muy sa jàmm ki bëgg am jàmm ba tax mu leeral lañ doon ruumandaat naan yoo yaay fa bëgg a fekki Macky Sall transhumé moom maire bu yoof Seydina Issa Lay Samb ci Vox Populi weddi na xibaar yi ba tëdd ca pegg géeju yoof ga nee na nit ñi fa ñuy dégg téll rek ne matt ga damm na man Macky Sall dalal na ma ca pale ba naam waaye nekkutoon man kenn mbooloo lañu woon te la ñu yóbbu woon mooy suñ tefes gii wàllu suuf si doxalin beeg yi ni mel moom lañ doon lijjanti ñi yaakaar nag wala di wax naan man faa bëgg a fekki Macky wala faa koy fekkeek fañ maa xamut man du ma war sama askan du ma war yeewi askan wi ndax fa ñoo am ci man yaakaar fal ma sama fukki xel juróom-ñaar dajut may def transhumance xanaa léegi ay wax day jeex kàddoom yaa ngi ci les échos yéen kaay si du quotidien na ko fi mu toll nii kay intaha c'est fini jeex na ndax leeral nga ne politique yóbbu la woon ca pale ba te doo ma sa wor ñi dëkkee nag di wor africain yi mooy tubaab yi ci wàllu football li ñuy wax ballon d'or tubaab yi xalaatuñ koo jox sax africain yi Jay-Jay Okocha bu Nigéria a kaay ne a kaay mooy la bëree kañ la nee na loolu moom du ma ci wax man ma wax leen li nekk ci libération yaw seetal benn sénégalais ak ñaari malien takk dara fañ leen a teg loxo ca frontière senegal ak Mali xam nga lu ñu defam fa fekk ca ñoom xaalis bu toll ci benn milliard bu tegal juróom-ñaar téeméeri million aay yéen de bu ngeen rawoon fa ngeen di tekki de waaye raw nag moo jafe takk deru Sénégal yi fa ñoo mën a enquête fa ñoo xarañ garaaw kuñ bëgg jàpp jeexal xibaar yi waaye nag xibaar yi day woy ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal ko moom Mouhamadou Khalili mi fare woon ci partie digitale bi jaajëfal ko du sekk kenn mi ci xarale gi ak it waa rédaction ci jàppandal gi yéen tamit jaajëfal nañu leen yéen ñi fare woon ci wàllum déglu gi woy leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak mucculee jàmmi biir ak biti tawféex tey taysiir jaa ngeen jëfati le journal Ngoné Ndiaye Reine